ah asalaamaaleykum adduna bi yëpp oustaz Ahmed Diop Fall mbëkk moo leen di nuyu yàlla yi kese barki yow man xëy la kabar ma match bi nag neex na mais kenn du supporter yi ñoo ko gagné laseer yi vite déggoo ma ne laseer yi xam nga lu ma ci neex ñii ngi teg ci moota lay ñii di teg ci xeet mbal yi bàyyiwuñu guus bàyyiwuñu duraat. allez les lions barki yow man xëy la kabar kontaan nañu kontaan nañu. ana sa loo gis kontaan. chers yi fu bal nañu. ay jàmbaar lañu. total ay ndaanaan lañu. total waaye laser ya gañe match bi. waaw a ñoo gañe match bi. rien à dire. Ah. rien à dire. may may ko waaw ah. naa la ñoo rewal. waaw. gis nga Sénégal soo koy lebal soo ko ko jàmm. gis ngeen bu ñu lebalan tuuti xoolal bu ñu lebalan jàmm. Mhm. jàmm lañ koy jox ñoonu lebal ay laser. Mhm. ñu fay leen ko ba wis leen ko. Mhm. laser ya fële lañ ko teg mu ni. li ma gis ne ah, huit millions quatre cent cinquante la seer. waaw waaw man xaaral la nga salaire dañ koo la seer mu naan nii salaire cinquante mille la seer ñoo nekk ci biir. salaire dañ koo la seer mu naan nii salaire. bàyyi la dañuy fen nii. Ah, dañuy dund ah, bàyyi la. Ha ha <laughs> ha ha!